salaamaaleykum mbokki di safoo di seetaan Joker TV tey nag dañoo ñëw fi nga xam ne que de moo di Guédiawaye daal di seet si benn ndaanaan yaakaar naa ne kenn dootu leen ko présenté ndax nee naa leen ñi may dalal moom macha allah ay ndaanaan lañuy doon ba tax na tey ki ñu dalal ñu ngi koy wax Alla famille sénégalaise dama koy bàyyi ñu daal di nuyoo ñu daal di rek jublu ci waxtaan bi àlla maa ngi lay nuyu di la dalal si Joker TV. waaw euh, ñu ngi lay nuyu bu baax euh, di sant yàlla bu baax di julli si yonente bi salallahu alayhi wa di sant sëñ Fallou di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi loolu te wér ak sëñ Muntaxa Mbacke donc di leen bëggee bu baax a baax si seet si ngeen ñu seet si tey alhamdulilah waaw. àll su ma bëggee xam tey kan mooy àll nan nga ma mën a wax. waaw àll day moom euh, benn ndongo la rek comme li ngeen ko gisee si personnage bi rek maanaam donc fii fii ngeen ñëw tey fii la ñu débuté sunu lépp.

lañ si lañ si démarré di ko di ko def donc nekkoon si benn troupe bu ñu naan daaree xam ne fa lañ jàngee théâtre donc après nag ñu ñibbi si fiñ mi formé fi troupe dee ko gis-gis théâtre ba ni yàlla def euh, ni ñuy commencé si série yi xam nga di parce que booy xool première kii bi ma njëkk a feeñ euh, comme figurant mooy Madior ak Dior après ñu ñëw si VIP sañse après fu lañ fi jógee nag daal di ñëw fi nga xam ne moom mooy famille sénégalais quoi. Mhm. Alla bëgg naa xam sa relation ak waa famille sénégalaise parce que gis naa ne am ngeen complice boo xam ne ko ne dafa doy waar est-ce que tey loolu mun nga ñu ci wax tuuti. waaw donc relation moo xam nga ay nit bu ñu dajee presque ay six mois wala lu ko ëpp di tourner day dem ba day doon famille ñun ñëpp benn lañu ñu ñëpp ay frère ak sœur la daal waaw c'est ça quoi. parce que tournage bi dem na ba boole ñu dem na ba bu ñu même bu ñu tourné wu sax dañuy déggante dañuy xaaw xam nga ba ñëw rek maa ngi la maa ngi déggante Codou kon donc dem na ba doon benn famille quoi. Mhm. mais àll tey su ma bëggee xam avant ngay njëkkee si li nga xam ne moo di théâtre lan moo nekkoon say activité waaw donc activité yi moom bëri na parce que boo xoolee à part loolu euh, Dakar dem dikk laa doon liggéey comme embossement donc mais tey xëy na métier bi dem na ba nangu li nga liñ doon def yëpp waaw donc loolu tamit sant yàlla la parce que mbir boo si euh, durée lu mat euh, quinze ans nga nekk si bu yàggee rek war na la mën a jëriñ daal sa nit ki yàgg rek war na la mën a jëriñ moo tax léegi sunu activité yëpp dañ ko jëmale si li nga xam ne moom mooy théâtre quoi. Mm-hmm. àll tey bëgg naa xam aussi lan mooy say projet ba xam yow si théâtre bi kese nga yem wala am nga beneen liggéey boo xam ne aussi yaa ngi koy liggéey. waaw ñi ngi sant yàlla bëgg ñu def ay projet comme ni ko gars yi di defee xam nga soit euh, ubbi ay mbir yoo xam ne ñun ñun ñoo ko moomal suñu bopp. comme euh, fi ngeen gis nii euh, Royal City bi donc sunu moomeel la sunu yëfu bopp la kon donc xëy na ñu ngi jéem ay projet yoo xam ne même bu dul théâtre bi dinañ si mën a dimbali ko quoi dimbali sunu bopp quoi c'est mhm, yow à part li nga xam ne que ne moo di restaurant bi nga xam ne tey fii lañ la fekk nga mu nekk sa frère macha allah moom aussi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax parce que dalal nañu et tey lan mooy sa ambition. ba xam yow théâtre bi tey bëgg nañ la gis feneen si yeneen fachette boo xam ne que ne bu bokkul fachette bi nga xam ne que ne moom ngay def est ce que pare nga tamit jouer yeneen théâtre yoo xam ne doo nekk si famille sénégalaise kese waaw loolu moom loolu la ñëpp di ñaan yàlla comme di dem di jouer comme film international comme ni ko gars yi di defee dem boy film yu mag yi ñu bokk si parce que acteur bu nekk loolu ngay ñaan comédien bu ne loolu ngay ñaan ñun jëluñu affaire bi rek def ko buzz wala nangam nangam mais dañ ko jël Euh, comme benn mbir moo xam ne dañ koy jàng dañ koy tàggat mu doon suñu métier professionnel boo xam ne bëgg nañ si dara comme fu comédien toll ñun bëgg nañ fa toll quoi c'est kon am nañ si mbëbët bu baax a baax a baax a baax alhamdulilah. Mhm. mais tey àll dama bëggoon xam bi durant bi nga commencé jouer ba léegi si famille sénégalaise ban épisode nga xam ne que ne daf la marqué nga xam ne tey boo toogee di ko seetaan dafa am feneen foo xam ne daf la fay yóbbu loolu la. waaw bëri na bëri na xam nga famille sénégalais moom comme li wax dafa am ay épisodes yoo xam ne yow mi koy gis sa bopp yow daf lay marqué parce que daf lay yóbbu fu sori donc benn mooy bi nga xam ne maar euh, sa tàggoon a dem màkk xam nga ñëw nekkate màkk boobu dañ ko refoulé affaire yooyu noonu ndax euh, amul kayit di valable donc loolu moom dund naa ko quoi parce que boo sentir ni ma ko doon gisee sax nga xam ne sa waaye dund na rôle bi parce que euh, tas yaakaar baaxul quoi. c'est ça loolu moom dund naa ko bu baax a yow boo toogee tey seetaan sa bopp ban lan la lay lan la lay jox. waaw moom bu moom daf may dafay mel ne beneen nit rek moo taxaw par exemple saa sama gis ay affaires yoo xam ne nii ay reetaan daf may jàpp mais nit ñi c'est par exemple nga romb sax nit ne la waaw ëllëg affaire yooyu noonu xam nga bëgg la dugal ci personnage bi fekk ne yow loolu noonu pare nga ci quoi waaw donc loolu loolu gars yi dañ koy jaawale quoi personne ak personnage bi. gars yi dañ koy jaawale de trop daal waaw mais tamit sant yàlla la ñun ñoo ko opté comme que nit ñi dem nañ bay seetaan di si gis seen bopp rek alhamdulilah quoi c'est ça. mais Alla dama bëggoon xam yow ni ngay waxee ci série bi moom ngay waxee walla parce que gars yu bari ñu may demander lool nee nañ ma Tuna soo demee laajal ma ko lool parce que ni ngay waxee ci série bi dafa doy waar daal. mais Tuna tu as passé dans la moi maanaam maag yow ñu ngi jàkkaarloo tu as vu la donc c'est naturellement que je parle comme li ma la wax rek rôle la rôle bi nag donc moo laajoon ñu ñu yëkkati voix moo laajoon ñuy dem bawal mais tamit après rôle bi tamit dañuy ñëwaat doon Ousmane quoi. Hmm. mais mën nga ma ci may tuuti ni ngay waxee ni ngay waxee daan noo àll dama ko bëgg daan. waaw xam nga Tuna moom waa Jokkeer bu ñu ma seet see moom baax na nag ñu xam na rek am loo xam ne nag dañu leen koy defal ndax yéen sunu invitation ak yéen dafa xaw a yàgg moo tax du noonu. <laughs> loolu moom <laughs> non li nga wax rey na ma barki yàlla lii moom non doy na waar daan non kontaan naa si nag bu baax a baax àll tey dama bëggoon xam aussi ba xam am nga yeneen projet yoo xam ne tey mi ngi si si mi ngi si sa kanam pour nga mun ko def. waaw donc ñu ngi après à part comme que famille Sénégal bi donc tourné nañu li nga xam ne moom mooy deuxième saison bi ba pare. mais am na yeneen projet yo xam ne gars yaa ngi ci sollicité pour ñu démarrer ay tournage yoo xam ne dañ koy tourner ak yeneen producteur mais tewul aussi ñun tamit si kanam tuuti dinañu mën a produire suñu bopp parce que am na mbëbët boobu tamit mi ngi suñu mu ngi sunu xel daal waaw c'est ça quoi mais àll bëgg naa xam aussi hmm. euh, famille sénégalaise jabaru Marlo yi hmm. nan nga nan ngay nan ngay dundee at ñoom surtout soxna Bëtër sama xarit boobu maa ngi koy nuyu da passage sama xarit sama doomu ndey maa ngi koy nuyu bu baax a baax soxna Bëtër sama jumelle bi tey ban ban relation ngeen am parce que gis naa que ne macha allah Marlo sonn na si jabaram bi waaw xam nga rek Marlo moom comme moom daa woyadi hmm. moo tax yu si bëri bi mu demee Màkka moom laa gën a sonn surtout ak tabaski beeg donc dajale jabar yu bëri moom coono la mais à part série bi comme ni ma la wax rek ñun ñëpp ay gaayan lañ surtout Batoor parce que moom maa ngi moom ñoo bokk sëñ Fallou ñoo bokk sëñ Abdou Karim mi nga xam ne moom la ñu jébbal donc dañuy am mbégte chaque jour chaque jour di nekk ensemble tooñante même bu dul tournage sax moom noonu la ma yabee naturellement day jékki-jékki dama eh kaay fii yow mais waa zaaru kii yooyu daal te loolu dama kon nangul mais si kanam tuuti dinañ xam ne daal no affaire bu neex la daal macha allah. mais tey ban conseil ngay jox jeunes yi nga xam ne tey ñu ngi dugg ci théâtre ban conseil nga leen di jox. waaw conseil bi mooy ñu bañ a yàqamti rek parce que xam nga maa ngi lay expliquer na daanaka man def naa ci cinq quinze ans et donc quinze ans yooyu noonu ku yàqamti mënu ko daal donc loo gis ndànk-ndànk la dara xëyul rek sotti mais dangay gis ne ci tournée léegi gars yi jeunes yi dañu yàqamti trop dañuy bëgg a ñëw tey tourner tey feeñ tey te loolu mënul nekk daal. lo gis rek ndank ndank mom mo ci gën ba kérok luy jot jot da métier bi mom dañ koy dañ koy jang dal dañ koy jang dañ koy tarbiyu parce que bu fekkee nang ci bëgg dara am am dara mom fo nga jang ko sax c'est ça mhm. wa tay dama bëggon xam aussi sa soxna ci machallah mom bi mu déggu ma la ko <laughs> royal city bi <laughs> sama rakk ji waaw waaw léegi nañ xool café rek waaw café bi mo solo Adama Ndiaye mi kafe na de. dem na Touba daal xam naa ne. ko dem na ndindi daal. dégg nga. ma ne ko Adama dem na ndindi de. <laughs> non àll mu may daaj fii maa ngi dee bay bëgg de àll tey dama bëggoon xam sa soxna si macha allah moom na bi mu ëmbee ba léegi accouché gu te gaa yëpp ñu ngi laaj kañ lay accouché kañ lay accouché tabaski nañ fi def nañ fi lu nekk daal léegi kañ la war a accouché nag. man daal xam naa ne bu ma sañoon daal. ngeen bañ ma um xam nga moom code un deux mune mu fuskus fuskus bo nak lay bañ nak ngeen ngeen ngeen dugal ma ci dimbali len ma rek les si série bi les dess des wul am len patience rek yalla legui yalla def ko inshallah rabbi mu am dom ci katanu yalla mais nañ xaar daan ke ne dina am do ah an inshallah da suivration reen rek dina bax ngeen dal am len patience suivration rek. <laughs> kon sa ya ko deg neena nak Euh, dina accoucher nañ nañ ko suivre rek nañ am eh. patience kon nag nañ patienté Maysa boobu yow yaa ko moom. Mhm. lan ngay wax Maysa borom euh, Joker TV. waaw xanaa kontaan si moom rek vraiment ndax euh, waa Joker moom comme ni ma la wax rek yéen a ngi def lu nice quoi macha allah donc site bi yàlla na ko yàlla barkeel donc li ngeen si bëgg yéen a ko xam mu dem ba doon des grandes télévisions yu mag incha allah rabi te yàlla am na ko mun na ko daal waaw c'est ça daal. lan ngay tàggatoo. waaw di sant yàlla rek comme ni ma ko tàmbalee woon rek sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant sunuy waajur sunu yaay sunu waajur bi nga xam ne donc ñun dañoo teel a ñàkk waajur bu góor donc yàlla bàyyi ñoog tamit sunu yaay ji nga xam ne moom moo fi nekk di faatu ki ne yàlla yàggal ko fi lool bu baax a baax a baax a baax ak sunu frères yi nga xam ne ñun ñoo fi nekk ak sunu mbokk yi nga xam ne waa mam mambaalo yi ah ak ñi nga xamne dama bokk ñom serigne abdou karim mbàkke xam nga man nak ab talibé serigne abdou karim la donc ñi ngi mbokk talibé yeeg ñëpp ak ñi nga xamne ñi ngi ñaanal àlla aussi ñëpp ñu ngi leen di wax ne dal contane nañ bu baaxa a baax ci ñom ak surtout serigne rek fo waaye mëna nekk rek kon daan ñu xaar at at benen fachette waaw inshallah allah dara parce que américain bi mi ngi fi monsieur le maire mi ngi fi ñi ngi waja ñew di ngeen gisat yenen yenen fachette yo xamne donc du bokk ak facette parce que bëgguñu jël benn facette rek di ko doxee daal dañu bëgg chaque produit ngeen gis lu bees ci àll daal incha allahu rabbi mhm. merci beaucoup Al kontaan nañ trop si euh, dalal bi nga ñu dalal vraiment c'est pas évident nga jógee tey voyage ñëw defal ñu émission bi yombul vraiment waa Joker TV ñëpp nag équipe bi yëpp ñu ngi lay remercier bu baax di kontaan aussi si yow bu baax a baax xam naa rek dañuy joxe dig daje rek ba beneen yoon incha allah at beneen beneen daanaan nee la ñun bu ñu génnee rek daal di gën kon nag euh, mbokk yi di safoo di seetaan Joker TV tey Tuna Lisa lii la leen indiloon fi nga xam ne que moo di géej waaye daal di seet si ku ñuy wax euh, Al famille sénégalaise tey moom lañu seet si woon. Royal City dëkk américain yi. da ko Royal City nga ma fekk tey. waaw. <laughs> Mhm. kon foofa toj <laughs> waa mbokk yi di safoo di seetaan Joker TV tey lii lañ leen indiloon nee naa la tey dañoo seet si ndaanaan nee naa la bu ñu seet ndaanaan rek waa Joker TV rek dañoo gën daal di gën a gën kon ni ma leen ko waxee woon tey nag dañoo seet si woon àlla borom famille sénégalaise muy def lu doy waar nekk nekk jàmbaar ñu ngi koy ñaanal yàlla yokku carrière ba mu yokku ci barki Seydina Mohamed fi mu bëgg yegg moo ko xam yàlla ko suñu borom yeggale foofu tam nekk loo xam ne dafay gën ci moom euh, kon ni ma leen ko waxee rek maa ngi remercier Maysa macha allah nee naa la moom moom dafa gën di ñaan di ko ñaanal yàlla yokkute bu dakk boo xam ne macha allah site internet bi dem ba nekk télévision waa di remercier Weuz bi nga xam ne aussi moom laa àndaloon ci cameraman bi di ko remercier bu baax xale bu am jom moom aussi di leen jox rek di daje si beneen euh, ndaanaan rek nee naa la ñun bu ñu ñëwee rek dañuy gën a gën kon nag tunaali saa ngeen àndaloon tey sur la Joker TV di leen wax rek à la prochaine incha allah at beneen ndaanaan